commune de Bignona euh, banyu kili kilifa yi nengen na ngeen ràññee ñi nga xamante ni bëgg nañu nekk candidat ci seen maire yi ñun ba dajee fii ci commune de Bignona ñeenti nit ñoo yëkkati seen loxo ci ordre bi ñu yëkkatee seen loxo man maa ci jiitu Mamina Daffé topp si Obin Sagnan topp si Joachim Coly topp si ah, di ñeenti euh, nit yoo xam ni kenn ku ne am na taxawaay boo xam ni su ko sañee su ko am na sañ-sañ ne man de bëgg naa jiite list coalition Benno Bokk Yaakaar nekkal ko candidat ci mairie de Bignona ñoom ñun ñeent yépp kenn ku ne am na makaama boobu am na sañ-sañ boobu am na taxawaay boobu ah ñu ne waaye gannaaw benn sées la benn toogo la toogu la mooy kenn moo mën a toog ah il faut ñu waxtaan suñu biir eh, ñu daal taxawal kuréel boo xam ni ay kilifa lañ ci dugal ay mag lañ ci tànn ñu dem waxtaan ak ñun ñeenti candidat waxtaan bi nag li mu joxe mooy ñun ñeenti yëpp kenn nanguwul dellu ginnaaw fii ci Bignona euh, waaye ñun ñeenti yëpp dañu d'accord nangu ni d'accord nañu ñeenti tuur yi dem ci àgg ci kilifa gi di suñu président coalition di le président Macky ñun ñeenti yëpp nag kenn ku ne jël engagement wax ni man de ci kilifa gi di tànn dogg naa topp ci moom ñu liggéey ma xam ni noonu la ko yàlla du bëggee ñun ñeent yépp ñoo def déclaration commission bi bind ko ñëw ci réunion rendre ci compte ñun ñépp fekkee kenn weddiwul ni loolu la wax te bañ koy wax kenn xamul kan la tànn kon ba jàpp ni kenn ku ne la mu doon wax lu dëgg la ci moom lu sincère la ci moom ah bi kayit yi demee ca Dakar àgg fa mu war a àgg li ci tukkee daal mooy président Macky Sall ki mu tànn pour mu jiiteel ko liste Benno Bokk Yaakaar fii ci commune de Bignona mi ngi tudd Mamadou Lamine Keita

gërëm aussi waa Bignona ndax euh, xam ni man dara ñoruma ci wàllu politique lu dul xeexal Bignona te ñu ràññee ko si man tax na waa Bignona ci lépp lu ma mus a engagé wu bàyyiwuñu ma ginnaaw kon Bignona maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni li ma président jox ci mission ci boppu euh, coalition bi jël naa ko dënk ko waa biñona fas yéene ko bokk ak ñëpp rawatina nag euh, ñii nga xam ni ay responsable lañu ni man seen bëgg biñona tax ni jàpp nañ ni ñoom mën nañoo jiite te lu war a mën a nekk la waaye yàlla moom mooy dogal ah, kon man mi mu dogal ñu tànn ma man maa war a ubbeeku lolu moy que kilifa lolu moy mandarga ku mat lolu motax mané déclaration bi damay ci talal loxo ñepp ñi nga ay responsable lañu ñi am taxaway lañu ay militant lañu bokku ci parti wala mouvement bu bokku ci Benno Bokk yaakar fi ci commune ñun ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ak man liggéey bi ndax suñu tànnoon keneen itam noonu laay def euh, rawatina ñeet ñeet yi nga xamante ni ah ñoo doon xëccoo ak man kon maa ngi tàllal loxo euh, Mamina Dafe wax ko ni gannaaw tànneef bi nekk na ba pare li des mooy fexe wane ni ñun ñoo bokk benn kër ñu sàmm ànd ba suñu euh, camp am ndam noonu laay tallalee loxo Obin Sagna wax ko ni a ah, lii ma président jox ndax xam ni euh, ñun ñëpp a ko bokk mënul woon jël ñett ñeenti nit kenn la waroon jël euh, kenn du xëccoog yàlla yàlla lii la dogal kon Euh, ñu ñëw lu ci am solo mooy ñu dellu gëm ni intérêt bi ñoo na intérêt suñu coalition ak respecter décision président Macky Sall lu mu ñu recommandé mooy kenn ku ne wàccee sa dënn ñu ñëw joxante loxo yóbbu mission bi noonu laay wooyee euh, Joachim Coly euh, pour ñoom ñëpp ñëw ñu bokk liggéey bi ak ñeneen ak yeneen responsable yi nga xam ne ñu commune bi mënoon yëkkati seen loxo ku mel Ernest Abou nga ci commune bi coordonné Bokk kenn gën ko légitime su ko loxo ko euh, kon ak kon kenn ku rek na ñu kanam talal na loxo pour nga ñëw bokk bi euh, pour que le 20